asalaamaaleykum mbokk yi tey la alxames fukki fan ak juróom-ñett ci jumaadal ula muy weeru rakkaati gàmm di juróomeelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukki fan benn ci weeru novembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñeent fukki fan ak juróom-ñett ci rakkaati gàmm dafa bokk ci li muy fàtt yi kon tey ci alxames ji rafetul alxames ju nekk sunna la ci ku ko man mu wóor ñaanu bis bi yow yàlla yàlla na nga ma jéggal yàlla na nga ma yërëm yàlla na nga ma jubal yàlla na nga ma jàmmal yàlla na nga ma wërsëgal allahuma axfir lii warxamni wahdini wa aafini warzuqni allahuma axfir lii warxamni wahdini wa aafini warzuqni xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku nangu ne yàlla ab buur la nangu ne lislaam diine la nangu ne sayidina muhammad ndawul yàlla la mos cafka ngëm yàlla xadis bi buxaari nettali na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam daaqa taamal imaani man radiya billahi rabban wa bil islaami wa bi muhammadin rasula rawahu lbuxaari waxtu cinq heures cinquante trois juróomi waxtu yu tegal juróom fukki simili ak ñett tisbaar treize heures benn waxtu bu tegal fukki simili ak juróom-ñeent takkusaan seize heures dix neuf ñeenti waxtu yu tegal fukki simili ak juróom-ñeent timis dix huit heures juróom benn waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom-ñaar gee dix quarante huit juróom-ñaari waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom-ñett loolu mooy waxtu julli si Tuuba ak li ko wër.